man li ma gëm muy dëkk bu nekk daal ka fa nekk kilifa moo gën a xam matti lalam fan la nekk alors moo tax ñu ñëw gisante nii pour jéem a xool naka la ñuy def pour dimbalante fexe ba département bi mais également région bi parce que maa ngi jotante gouverneur léegi ñuy échanger tënk ci ne bu ñu paree ci département bu Kaolack daañu jaar ci département bu Nioro mais ci buntam muy préfet bu département bu Nioro daañu dugg tamit département bu new moom mi tamit jaar ci maire département bu new ci ndigalu gouverneur bi nga xam ne moo nekk Kaolack ñu waxtaan ci ak moom ba ba ñu d'accord ci mu wan ñu ne loolu mooy tax liñ bëgg a la wala message bi wala dimbalante bi nga xam ne bëgg nañ ko teg ci place yoo xam ne ku koy woo ku nekk dana yegg ci yow jaare foofu moo gën a gaaw ci ñun alors moo tax damay wax toujours métier mu nekk wala mbir mu nekk ko moom jox ko ko soo bañee indi jafe-jafe li ma jàpp tey mooy dëkk yi mbooleem département bi maire yi fi nekk tey ñooy buntu mbooleem commune bu nekk donc toujours dañuy préférer jaar ci buntu yooyu pour ñoom ñu yegg ci seen population yi parce que seen population yi ñoo leen dayloo ba fal leen kenn joxu leen ay ndomban tànk yoo xamante ne nii nit a neex rek mu jox leen ko ñoo dem laaj askan askan dayloo leen dénk leen seen bopp kooku nag boo bëggee jëflanteeg ñooña da ngaa war a jaar foofa ba mu jëflanteeg ñooña alors ñi ñu ko def ci ndigalal président de la république nga xam ne yéen ñëpp yéen a ngi suivre depuis mbir mi di waaj wala muy tàmbali ñu koy xelmati ci réew mi ak bi sab tey ku ku ne gis na ne du guddi du bëccëg yendalatul fanaanalatul mi ngi dajee ku nekk. seetul ko ànd ak moom ak ku àndut ak moom lim jàpp tey mooy réew mi moo soxla moo tax mu sol dàllu réew mi yëpp. ci sama tur man waaye am na yeneen kilifa yi fi nekk yoo xam ne danañ ko mën a gën a jotal ñoom ñun ñëpp ñu ngi wane suñu solidarité ànd ak président Macky Sall suñu solidarité ànd ak mboolem population bi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey ci biir réew mi pour yàlla dimbale ñu waaye yàlla may président Macky Sall kattan. gum mën a yenoo lii nga xam ne dafa dal ci kow réew mi ca moom mu nekk ca bopp ba tey war ko pour mu sàmm ñëpp war ko pour mu aar ñëpp war ko pour mu jéem a dimbale képp ku yeeyoo ndimbal mu taxaw ci sa wet pour fexe loolu nga jot ci. mënoon na ne rek def nañ lu ñu def mu defee ko neneen waaye daf à chaque fois laa même chose day def woo ñu ñun ñëpp. kenn ku ne mu ekkati la tuuti te du doon lu tuuti sax nag buñ ko yóbboo lu mu bon bon dina am ñoo xam ne dinañ leen ci dimbale bañ gis seen bopp kon dañ koy ñaanal lu mun ren yàlla na ko yàlla yàlla mën na lu ko ëpp déwén di wax nag lancer un appel sama mbokku maire yëpp ñu xam ne daal gën a jàppantewaat xam ne dooloo booloo mooy doole lii muy def tey bëri nañu ko mën a def Saalum tey bu ñuy bu ñuy compter rek les les les milliardaires du Sénégal Saalum lay ëpp du ñu dem buntu kër yëpp kenn ñaan ko nag waaye ñun askan bi lañ fi newoon ndax askan moo ñu fal ñu nekk ay maire kon bu defee lii woo ñu tey jël ay ndimbal bu ko teg suñu loxo pour ñu dimbalee ko suñu askan bi suñu askan dañ koy ñaanal di ko wax daal di wax lee mais tamit ñu gën a jàppoowaat gën ko jàppale. ndax bokk ci ñi fi ëpp bopp ëpp alal waaye nag ñi gën a bëgg région Kaolack gën a jàppale région Kaolack gën a jàppale doomi Kaolack yow eh, cee ko bokk. Mhm. gàcce ngaalaama yalla mooy jàppale yalla na la yàlla jàppale. lii tuuti lu rëy la. ndax foo ko yóbbu rek am na foo ko foo ko lu mooy jëriñ foo ko yóbbu tey am na lu mooy jëriñ te bokk na ci lii aar doomi aadama yi lii boo ko defee sowe nga ay bakkan te dañ ne ku sowe benn bakkan rek sowe na bakkan addina yi li ngay def lu baax yal na la yàlla jàppale fi nga yéene ak fi nga bëgg